gis nga politique su ci dëgg ak étude jógee rek dara desatu fa dañu def le dialogue national et bu ñu ko defee on a voulu ouvrir lu plus large possible Karim Wade le PDS a participer à ce dialogue national on a discuté bu ñuy discuter nëbbutuwuñu nag ñëpp ñuy seetaan ñu déglu ko ñuy xool Sénégalais du ñu xool du ñu dégg ça correspondait à un besoin chez les Sénégalais muy Karim comme Khalifa sal man yàlla am na loo xam du ma ci dugg parce que yàlla moo def yaa ngi koy wax léegi xalifa sal suma xarit la xalifa sal j'étais son avocat Karim Wade sama rakk la j'étais son avocat man PDS laa jógee Ablaye Wade moo ñu bokk jur ñun ñëpp Ablaye Wade dafa ñaari doom laa am ñi ma jur ak ñi ma jural donc tey jii képp ci ñun kuy toog di xarab Ablaye Wade rek danga ñàkk jom te man ñàkkuma jom donc je dis que euh, euh, ñun ñëpp dañu bëggoon Karim bokk que le PDS nag c'est euh, benn franc benn benn kii la euh, ci politique am na lu muy représenté ci Sénégal daf fi bokk depuis 1974 bokk ci élargissement des espaces de liberté et le renforcement de la démocratie daf ko xeex ba agsi fi mu agsi d'accord Ablaye Wade def li mu def suñu sañoon lu courant que représente le PDS day bokk ci élection yi d'accord parce que loolu aussi moo tax ñu def dialogue ubbi dialogue bi pour ñoom ñu bokk doo leen boole ci dialogue bi ba pare ñu bokk ci dialogue parce que nga leen di génne loolu amul sens ça n'a pas de sens donc nous euh, euh, notre coalition et notre candidat euh, son vœu aurait été que ñooñu ces républicains là qui ont une démarche républicaine qui ont une démarche qui respecte les institutions de la République et qui ont participé au dialogue national suñu candidat Amadou Ba su doon dafa sagoom la sañam sañ sañam li mu bëggoon mooy ñooñu ñu bokk ci élection bi Mais donc nous n'avons pas fait de de recours pour Karim et permettez-moi je ne peux pas trop me prononcer. mais bu ñu defoon euh, bu Benno doon def recours pour Karim di nga ko porter. man waaw ah non je le dis tout de mais parce que parce que man mënuma ànd ak euh, comme avocat défendre kii défendre Karim ba pare ñu di def am procédure contre lui wala comme xalifa Sall du ma ko def parce que aussi éthique la dignité la. Euh, euh, dafa am loo xam ne bi maa ngi nii bon boobu ba léegi fan yii yëpp euh, c'est vrai que j'étais pas j'étais absent quand l'épouse de Khalifa avait a perdu sa mère je l'ai appelé je l'ai appelé pour aller lui présenter mes condoléances présenter mes condoléances à Khalifa malheureusement après bu ma ñibbisee boobu ba léegi dañuy am ay difficultés pour ñu daje mais nit ki soo ngeen da ngeen da ngeen di toog mu am ay dëj ma di ko jaale man bi sama grande sœur bi sama sama sama sama bàyyu jiitle gaañoo Karim Wade ñoo ma njëkk woo sama grande sœur nga xam mooy sama taawu papa bi mu gaañoo ay quelques mois matul six mois euh, juillet bi la Karim Wade daf ma woo d'accord kooku kooku sama rak la sama xarit la ab Ablaye Wade sama baay la am na àdduna loo xam man jaralu ma ko jaralu ma ko à titre personnel et aussi ma jàpp na ci politique jaralu ko amadu Ba Amadou Ba su sañoon euh, mbir yi am na nu muy doxee ci euh, parce que dafa bokk ci coalition bu ñu woowee bon Bokk Yaakaar Euh, président Macky Sall jiite ko coalition boobu la bu ñu waxtaanee suñu biir dañu ne dañuy def dialogue national pour permettre à Khalifa Sall et à Karim Wade de est-ce que le PDS n'a pas été berné c'est-à-dire PDS dem dialogue contre vents et marées. mbir dialogue boobu xajamal digganteem ak waa yeewi askan bi mhm. à l'Assemblée nationale PDS euh, ci vote yu bari ci vote yu crucial le PDS euh, dafa dafa a, a permis quand même euh, à Benno Bokk Yaakaar mu bañ a mu bañ suux ñu ne l'objectif du dialogue c'est que Karim Wade et Khalifa Sall ñu mën a participer à la fin de la fin c'est Karim Wade qui est la qui est qui la victime c'est Karim Wade qui n'aura pas profité euh, de ce de ce dialogue et de cette et de ce besoin euh, xam nga Maimouna wax naa la ne bëgguma ci dugg ci détails yi mais on a suivi l'argumentation du conseil constitutionnel euh, ñu ñaari nit ci dialogue bi la ñu dus la ñu toog waxtaan ne suñu sañoon ñoom dinañu ci bokk muy xalifa Sall ak Karim xalifa bokk na xalifa bokk na ci la gestion de son dossier xalifa a géré son dossier sans commettre d'erreur Khalifa n'a pas commis d'erreur donc il y a pas a commis parce que loolu la conseil bi wax man xam nga wax naa la ne bëgguma sori ci affaire Karim ndax li ñu séq ak aussi fi ma jaar ak PDS. Euh, euh, wolof moo ko wax njàng jàngaan soo mokkalee bers daara dama fa bokkoon maa ko Umar Sarr ñu ber suñu daara waaye ak donte ne ber nañ suñu suñu daara ñun ak ñoom ba tey c'est de meilleures relation waa PDS ak suñu waa parti donc ñun fu la ñu jógee ba tey jii jàmm la ñu seq. waaw may wax ne président Wade dafa man daf ma désigné woon comme secrétaire de lappel pour la réunification de la famille libérale donc je ne désespère pas qu'on arrive à la réunification de la famille libérale donc aussi sooy wax ak sa doomu ndey ni ni nga ciy waxee ak sa doomu ndey bokkul ak na ngay waxee ñi nga xam ne bi nag da nga xaw a noonoo ak ñoom Karim suñu doomu ndey la. Euh, dafa am benn injustice bu topp Karim Wade depuis deux mille. waaw xam nga nag man man sama waxu démb mooy sama waxu tey. alors sama euh, waxu démb gis nga gis nga gis nga may. est-ce que tout cela du injustice boobu moom mooy moom mooy continuer di prolonger wu di générer. waaw loolu nag xam nga kenn ku nekk sa destin xam nga àdduna yàlla. yàlla da nattu am na loo xam ne ni bii dañ ko ko teg am na loo xam ne bi nag yàllaa ko ko teg. fii euh, man yaakaaroon naa ne dañuy waxal yàlla rek bëgguma ci sori que dossier wu Karim pare na bu yàgg pare na bu yàgg dama ko yaakaaroon ndekete parewul bu yàgg donc loolu aussi ci ab demarche la lu tax mu demee noonu moom rek mu ci mën a tontu man mënuma ci tontu loolu épreuve la parce que yàlla su lay natt euh, fu nekk la koy jaarale c'est une épreuve bon et qui euh, détermine son destin tey jii objectivement suñ ko waxee ci tubaab son destin est entresemé et son destin était entresemé il avait une carte à jouer dans ce jeu des erreurs ont pu être euh, commises probablement en tout cas loolu la conseil constitutionnel wax donc li conseil wax dama koy wax encore une fois res judicata pro veritate habetur li conseil constitutionnel wax